alhamdulillahi alkarim ala istiqaali bi furudin wa sunan néewoon naa leen maa ngi nii kuy nëbbatu du ko wax Serigne Khadim Mbacke di koo xamante ni yàlla sa borom daf ko may ci wàllu laslaam mu nekk nag koo xamante ni nii mi ngi fii ci réew mi ngir dimbali doomu aadama yi képp xamante ni nii da nga amee jafe-jafe ci wàllu tukki jokkool ak Serigne Khadim Mbacke yàlla sa borom am na lu mu ko ci may bu fekkente ni nag da ngeen néew kattan di wàllu ngóora ak Serigne Khadim Mbacke bu fekkente ne da amee li nga xam ne moo di ay rab Serigne Khadim Mbacke yàlla sa borom may na ko ci lool sax bu fekkente ne da nga bëgg a ubbeeku ci wàllu njaay wala sax lii di bayre jokkool ak Serigne Khadim Mbacke Serigne Khadim Mbacke yor na ay jaaro yoo xam xamante ni jaaro pouvoir la ko tuddee wala sax ay chaîne yoo xam ne da koy takk muy seen pouvoir lépp loo xamante ni nii luy ubbi doomu aadama la Serigne Khadim Mbacke moo ci gaaw am na aussi tam ay ndomba yoo xam ne nii googu rek moo fi gën yor na tamit li nga xamante ni moom moo di ay kànnaar yu baax baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ni nii yéen a bëgg aar seen yaram jokkoo leen ak Serigne Khadim Mbacke bu ngeen ñëwee ba Touba ñu ngi daaru Minam woo leen ko ci 78 494 77 38 bu fekkee Dakar la nag mi ngi Kastoor ba tey mën ngeen ko woo ci 77 494 77 38 wala 76 489 35 00 77 494 77 38 wala 76 489 35 00 ak Serigne Khadim Mbacké coono jeex na ci